asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk jullit di nuyu mbokk taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi xalifatul am di sëriñ cheikh muntaha mbàkke moom sëriñ basiru moom cheikhul xadim di ñaanal suñu borom guddal ay fanam wéral ay cëram te lépp lu mu ci yoon bi suñu borom kàttanal ko bu mu matale ko di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp ndax na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon waxee nit ki lépp lu muy def te amul jàmm da koy ba ba keroog muy am jàmm soog kay mën a def kon ñu ngi ñaanal mbokk taalibe yëpp jàmm di amaan mbégte di leen dalal ci seen émission naafila ju jour et bayit du jour kon tey ñu ngi dëgmal ñetteelu fan ci weeru koor gi naafila gi nga xamante ne moom la ñu bëgg andi ñu ngi ko doxalee ci téere xuratul ay ni ba nga xamante ne sëriñ yi bu mbàkke moo ko taalif kon naafila gi mu ngi dikkee nii mooy juróom benn ràkk boo xamante ne bu ci ne da jàng fatiha ñeenti yoon inna anzalnaahu ak ñeenti yoon kaafiruun kon incha allah day doon ñetti sëlmal juróom benn ràkk boo xamante ne bu ci ne benn yoon fatiha ñeenti yoon inna anzalnaahu ak ñeenti yoon suratul kafirun waaye njëriñ ga nga xamante ne naafila googu am na ko sëñ soy bu Mbàkke andi na ko ci téere gi ndax nee na képp koo xamante ne def na naafila googu de di nga mel ni koo xamante ne goreel na junniy jaam waaye it da nga mel ni koo xamante ne jox nga ndogu junni nit ñu wóor waaye danga mel ni itam koo xamante ne wodd nga junni ñu rafle waaye itam danga mel ni koo xamante ne leel nga junni ñu xiif te képp koo xamante ne def na naafila googu des na ko ca bindal itam ay tuyaaba joo xamante ne dana toll ni limub njanaaw yi am ci àdduna gi yépp waaw te itamit képp koo xamante ne matale na naafila gii des na ko ca defal li ñuy defal jàmm yàlla ya gën a baax ak ñi nga xamante ne dee nañ ci xare lislaam te jëmm ji nga xamante ne matale na naafila jooju de deesu ko fitnaal mukk ci bàmmeelam te deesu ko ca mbugal itam te ñun ñëpp xam nañ ni kat mbugalu bàmmeel tar na lool métti na lool kon ñu fexe góorgóorlu ba mën a matal juróom benn rakk yi nga xamante ne moom moom mooy naafilawu naafilawu guddi gi incha allah kon bu ñu dikkaatee ak yenn ca njàngale ga nga xamante ne nag ku tedd ki def na ko njàngale gi ñu bëgg andi tey jii mooy njàngale ga nga xamante ne andi na ko ca téere googu di masaalikul jinaan masaalikul jinaan mooy yoon ga nga xamante ne moo lay tegtal ca àjjana ya waaye kon foofu danga nga dégg ku tedd ki naan yow mii di wóor na nga xam kat ni woor yemut ci bañ a lekk ak bañ a naan wu ci mukk kon mu ngi wax ni woor yemul ci bañ a lekk ak bañ a naan bu ci juum mukk kon woor mën nañ ko déggee ni day loo xamante ne itamit maanaam cër yëpp kay def cër yëpp kay def kon xam naa incha allah ay njàngale la yoo xamante ne dinañ ko gën a yaatal incha allah ci seen émission yi di ñëw bu soobee yàlla di leen santaat bu baax a baax te li leen ñaanal kooru jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu يا ود بال